di santaat yàlla bu baax di julli ci nabil Moustapha di sant Serigne waaye di ñaanal Serigne taxa xalif général des Mourides yàlla sun borom feqaat aw fanam mu yàggaat fi lool ci ànd ak wér yàlla yàlla ay yéeneem ak i mébétam ci lislaam ak ci yoonu murit di ko ñaana nag njabootu Seexul Xadim gépp ni ngeen ko gisee rek ñu ànd ko ak sunu kilifa yi ci njiitu sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Abdou Aziz ak Serigne Moustapha Gaynde Fatma ñu gën koo xamante ci Moustapha Amérique ak yeneen mbokk yépp yëpp ci des moom xam naa ñëpp xam ngeen leen ci ndigalu Serigne Ahmadou Makhtar xalifa Cheikh Mouhamadou mustafa ak njaboot gépp ñu toog fii fas yéene yéene leeralal leen ci suñu kemt kàttan xew-xew bu mag bii nga xam ne moom lañu ñu dëgmal ci fas ko yéene amal ca muy xew xew lislaam boo xam ne nam war a toll ak nañ ko yéenee xam nañ ne xat na sax suñu diggante ak fi ñu ko war a amale waaye dayaayu ki ñu koy defal it tax na mu ñoo mukk matale sunu yéene ci lool ci ci bis bi waaye nag dafay jaadu dafay rafet àdduna bi xam ci li ñu yéene ak fi ñu ci toll moo tax sëriñ Abdoul Ahad mi nga xam ne Euh, comité de pilotage bi moo yore communication bi organiser tey point de presse bu toll nii ñu leen di wax rek ne ci ndigalul sëriñ taxa waaye ci kilifteefu sëriñ du Maxtaar ak ci ay ndigalam ci la ñu taxalee kuréel bu mel nii mu wax nag ne nañ ko yaatal ci njaboot gi nañ ko yaatal ci taalib yi yaatal gi ci njaboot gi ak ci taalib yi nag moo waral mu war a egg fu àdduna toll rek ñu yéene mu egg fa mel ne ni ngeen ko baaxoo ni ngeen ko xamee ni ngeen ko baaxoo amale màggal gu jot ci màggalug Daaru Xudus ñu koy woowee màggalug Daaru Xudus muy dëppoog ñaar fukki fan ci weeru muharam ren ji dafa mel ne de dëppaloo ak téeméeri ati sëriñ bi bi mu ñibbisee Touba ci li ñuy wooye weeru wolof mu dëppook 1346 ba 1446 muy téeméeraat hijriya mu mel ni kon màggalu Daaru Xudoos ren téeméeri ati sëñ boobu ci Touba dafa am ak yokkute ndax màggal gi kenn umpaliwut ne Cheikh Moustapha moo ko woote woon doon ko wooteel sëriñ Touba. amit ay wax yu rëy yu mu ci wax ñoo xam ne jar na jullit bu ne mu war caa ñëw buñ doxee nag yàlla dimbali nu ñu dem ba téeméeri ati sëriñ bi ci Touba ñu koy waajal mu dëppook màggal googu ci sëriñ ku yilif Daaru Xudus daan ko daan ko jiite loola rek moo waral tey ngeen gis ñu fii ci kanam waaye màggal gi màggalu murid yépp la moo mel ne kon ñun ñii teew fii tey ay ndaw yu sëriñ Muntaxa lañ ñëw ñun ñii teew fii tey ay ndaw yi yoonu murid yëpp lañ ah. ñu jot ndigal nag ginnaaw bi ñu jotee bi sëriñ Ahmadou Maxtaar jotee ndigal ci sëriñ Muntaxa xalifa général des mourides ñu jot ndigal ci sëriñ Ahmad moo wax ne nañ taxawal kuréel gu mel nii ca bala ñu cee jëf dara muy siiw àdduna di ci jot nañ ku ko war a yëg ci njabootu sëriñ Tuubaa na ko yëg ndax maag ñoom ñoo ci yem loolu it dox nañ ci suñu kemtalaay kàttan loolu moo waral point de presse bii xëy na ñu yeex ci jublu ndax bëgguñu ñu koy déggandeem ci ay rajo walla télévision xam naa liñ ci war a wax ñi ci war a wax bari na te sunu kilifa ci liggéey bi mi ngi ni toog te ci am loo xam ne dañ ko koy bàyyee waaye na ngeen xam ne ndigal la lu jóge ci sëriñ taxa jaar ci sëriñ Ahmadou Maxtaar mu jox nu ndigal ñu taxawal kuréel bii waaye ci kaw yaatal programme bi nag ni muy demeek yëpp xam naa mbokk yi dañ ci dellu si foofu daal defe naa doy naa yem en attendant waaw jërëjëf gannaaw bi sant yàlla julli ci yonent bi Mustafa màggal googu nag moo day sant loo tax mu amal beneen changement beneen vision boo xam ne ni sëriñ si fi nekk te que tey moom laa ko ba am ci engagement bu rëy bu jël yéen a yi nag ak xéewal xam na ne suñu baax ko tabax taxawal surtout màggal gi Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne mooy taawam. moo ko taxawal ku ne war ngaa xam ne njëkk a bu xoolee ba ne bis bi dama koy def ci bàyyam wóor na ne ko xam ne ci digal ba ñëw suñ mu taxaa rek loolu moo tax ñu daje tàngoor bu am taxawaay bu rëy yéen nag lépp liggéey te mu nekk te mu njariñ ci yi rek li muy def lépp ak yim liggéey lépp du murid rek moo tax mu def ndax ba ba ba muy ñibbisi ijaal rujuan ila xawmina sa ila xawmi saadat kon sëñ moom daa yéene daa yéene jàmm àdduna ak vulgariser ñaare ko soo ak da dëkk bi jot sëriñ tam ak fu mën a nekk ñu war ci am beneen taxawaay bu taxawaay bi amoon loolu sëñ bi nga leen yéene ak xéewal ak ak ngërëm jóge sëriñ bi sëñ bi ku am ngërëm rek mooy mel na am nga ngërëmu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mel na ne am nga ngërëmul yàlla ndax sëñ Tuubaa léppam da koo dëppaloo ci yàlla muy alquran al karim ak sunna bi sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mës ta jóg def wala mu liggéey wala mu xalaat lenn loo xam ni ak njabootam la wala murid rek loo tax Cheikh Cheikh Mouhamadou Moustapha Mountakha ak ci taxawaay bu rëy di ak ñi bëgg Serigne liggéey Serigne Touba ak ak seen ñu gën a engagé nekk ci taalib Serigne Touba loolee war nañu pousser ñun ci gannaaw taalib taxawal moom ba def ba def rajo na sëñ bi joxe leen liggéey ñëpp màggal màggal bi beneen affaire bu gën a am solo jàpp naa ne bu murit tam dëgg sa xol jëriñ la koy fàttaliwaat da ngay demaat taxaw na bis bi kat comme centenaire bi la qualité bi nii la ko bëgg kon beneen engagement mën nga ko jox Mouhamadou Moustapha bi nga xam ne moo ci daal moom it noonu engagement bi moo jabootam yëpp la دارا وإسلام عند الصلاة ne leen ànd leen ngeen organisé yàlla nag moomu leen ko yéen ci yéen bopp li ko moom mooy dafay Sëriñ Tuubaa bu ndaw ñu sëriñ sëpp kenn ku ne ñëw def ci yow ci na bis bii ak moom yéen a ca ndax moom mën naa yëkk téléphone ay yaa am nañu nekk kilifa ñu nekk seen kilifa waaye pour jox ko dayoo ak respect bu am ci ñoom moo tax mu jël ay doomam mu ne dem nañ kenn ku ne ngeen toog ak moom wax ak moom yëgal ko war ko dafa def nañ ko sëriñ suñ dem yëpp sëriñ dem ñun ñëpp dañ caa amal beneen xalaat waxtaan yu bëri nag waxtaan tax gën a neex ci def boobu ñun foo dem sëriñ sëriñ Mourou Moussa bañ ci dem bu la waxtaanee ca dayoo bi Cheikh Moustapha xam ak li na bu dayoo la tey mbokk ñoo mën a def yooyu tool dem toog liggéey bi da bàyyi sa tool parce que liñ ko doon def loolu moo tax dem nañ ci waxtaan yi yëpp yëpp jox na ko ay sax képp kii tey nag ñoo nekk ci xoolal xam ne la ñu bëgg a taxawal. sëriñ Taalib sëriñ Tuubaa boo mën a nekk muy fii ci biir réew mi comité bi nag bu ñu ko taxawalee ay commission la ñu commission bu nekk dafa yor am nañu demee ba centenaire bi bu rafet kat nit kat bu départ bi jox 100 millions jox ko tegal ak table mu ne dem ngeen liggéey liggéey boobu xaj bëgg na yëngu la rafet ñun ñaareel ko Tuubaa ji xam ne teertale ko dëgër fexe ba ba taxaba taxawal masala dafa ci lépp sëñ bi wax yëpp yëpp xam nañ ñëpp ko ko def sëñ moomu saa moomu man damay faral wax ne l'autorité coloniale xamoon ne bu joxee Cheikh Mouhamadou Moustapha autorisation jumaa ji dana taxaw parce que jàppal ni chaque fois même bi ko joxe autorisation du mën a réunir toutes les conditions nécessaires pour la construction de la pour ñoom échec la jëm waaye bu xamoon ne réussite bi dana ko am dana ko tabax kon duñ ko duñ ko yokk si ñoom waaye nag def na ko euh, ba ba matal la ca des mooy njaboot ak njaboot bi boppam njaboot suñu taal bi ñu lay njaboot gi rek boppam a liggéey mooy jiitu daanaka njaboot suñu taal bi taxaw na njaboot ba dëkk ci biir waaye sax taxaw na mënul wax tey lii xew ci kër yëpp Cheikh Moustapha kon en premier lieu sëñ bi daal garé woon day wax ci moom dafay gis ne tout à ak ci biir léegi mel noonu à travers les conférences yëpp mooy sëñ bi ñëwee bi ak dañ lan moo fa xew ak lan lañ ci lan lañ ci war a waxtaanaat ba teg loolu mooy objectif kon nag nekk fii ci réew mi ak ñu nekk ci nekk ci réew war nañoo mën a à travers daayiru Sëriñ Tuubaa ñu nekk suñu bopp daayiru Cheikh Mouhamadou Moustapha yi ak daayiru Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké yi def benn topp ci gannaaw président daayira bi moo ko tawal ci Touba ñu def màggal boo xam ne xaj nañ ne daa nañ ko def mais duñ ci bopp danañ ko def yaakaar naa daal UEF loolu mooy objectif moo tax dajaloo ba def suñu jiw yooyu président boobu dañuy bàyyi ba nga leeral luñ taxawee ak luñ ko mën a dugg a jot région yooyu ak suñu Dakar ak suñu wàllu programme bi. auzu billahi min acheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, we are hereby gathered to address the world regarding a major event that will take place around July Under the leadership of Sheikh Mahmoud al-Muntaqa, General Caliph of the Murid community, who is among the 500 most influential personalities around the world, and under the leadership of Sheikh Ahmed Makhtar, his younger brother, and Khalif of Sheikh Muhammad al-Mustafa, who was the first heir of Sheikh Ahmed Bamba Mbake Khadimur Rasul. We are addressing the world to inform them, to inform the world that we are about to celebrate the centennial of Shah Bamba since his return to Allah back in according to the Gregorian calendar, but in one session, as we call it in Arabic, which coincides with the Hijri calendar which will be the Wamtashin, coming up, coinciding with July I have on my right Serin Sheikh Abdulaziz Mbake, who is the chairman of this committee, who is my cousin, and also on my right, Sheikh Abdullah Mbake Gaynde Fatma, who is the communications director of this committee and of this event, which will take place from the 13th of July to the 21st of July. And further on my right, I have Sering Usman Bakke, who is the chair of this committee also, the co-chair of this committee, who is in charge of uh, dispatching the different tasks that we are assigned to perform in perfection. So we are celebrating the centennial. A hundred years ago, Sheikh Bamba assigned his son, Sheikh Muhammad al and commanded him to take his body to Tuba here where we are speaking from, the capital of the Murids. something that we thought could never happen because of the confrontation between the French colonial power for a duration of 33 years between Sheikh Bamba himself and the colonial power. For 33 years, this man waged the greatest non-violent war in human history. And for this reason, He was under the subject of extreme persecution in the hands of the French colonial power, in detention, in exile in Gabon for seven, almost eight years, back to Senegal, in Mauritania for almost four to five years, and in house arrest in Chain Jolof, then in Jurbel for 15 years. So all in all, we are talking about 33 years during which this man refused to shed blood and he commanded his disciples throughout the world up to today to wage a peaceful war and engage a dialogue between us and those who think we are on the wrong path we are about to enter the phase of interfaith dialogue he had the mission to convey to the world because he was a servant of the messenger of god Khadimu and the messenger of God, peace be upon him, received the Quran through divine revelation. He could not have written the Quran. He did not write the Quran. And I'll give you one example. The Quran says, We have sent down iron, in which there is great might. You go to chapter 57 of the Quran, verse 26. The messenger of God said that Allah told him, We have sent down iron. Today, in the scientific world, all scientists agree that iron, even though is found in the earth, is not originated from the earth but was sent down from above. How could the messenger of God, knowing this particular detail about the, the, the, the metal called uh, hadith in Arabic. And for that reason, the Sheikh himself, in response to that fine and, subtle indication in the Quran, when he was about to go to the colonial court in 1895, went through Koki and asked for a steel tablet. A steel tablet going back to the Quran itself, who said, We have sent down iron. These are fine details that we must investigate with care to be able to convey that to the world so that the world understand what we are conducting, what we are doing. So it'll, it'll be opening on the 13th of July in Toba, then in Luga, and in Dakar, where we will invite the diplomatic corps to attend the exhibitions I should say, that will be highlighted and where will exhibit things you have never seen, will explain things you have never heard about this man and the greatest nonviolent war that was ever waged in the history of humankind. Therefore, the Magal itself, which was held by Sheikh Mohammed Mustafa under the command of his father, Sheikh Ahmed Bamba will be held here in Toba which will mark the closing ceremony after the 21st, of course, here in Tuba on July With, those remarks, I remain yours for any questions that might be asked for those who are in sub Africa, in Europe, and in North America, and Latin America. salaamaaleykum wa rahmatullah. ginnaaw bu ñu sant yàlla. julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam gërëm tedd gi. maa ngi yëkkati ay nuyoo ak sant ak ziar jëmale ko ci sama kilifa yu sell yi nga xam ni ñoo nekk ci bopp comité de pilotage bi te ñu ràññi Serigne Cheikh Mbacke Serigne Abdou Aziz Bara mi nga xam ne mooy président bi ànd ak Serigne Moustapha am Serigne Cheikh Gaynde Fatma Serigne Ousmane feggoo ak itam Serigne Abdoul Ahad mu Serigne Cheikh Gaynde Fatma bi nga xam ni moo yore commission communication bi. te mu liggéey liggéey bu rafet bu am solo bii sëñ Cheikh wax na ko léegi ñun nag ñoo yore maanaam sëñ Sidi Abdou Aziz ak sëñ Omar mu sëñ Cheikh Gaynde Fatma ñoo yore commission bu finance ak relation ñu ànd kook maanaam mën nañu membre yëpp ci lañ bokk euh, ñu ànd ñoom liggéey bi sëriñ Abdoul Ahad mu sëñ Aliou sëñ Basirou Ñaan sëriñ Guèye ak ñi ci ànd ñëpp ak sëriñ Abo ñu ànd liggéey bi ñuy jiital ay ngërëm ak i ñaan ci sëriñ tubaa Cheikh Mouhamadul Mountakha ñu ñaanal ko lool mu yàgg fi te wér ba li mu yéene liggéey lislaam lépp mu liggéey ko bi barakati rasulillahi alayhi salaatu wasalaam ñaanal ñaanal ko Baye Ahmadou Makhtar mi nga xam ni mooy xalifa Cheikh Mouhamadou Moustapha al Karim ñaanal ko yàlla bàyyi ko fi may ko ak wér ci liggéey bi nga xam ni mi ngi koy jiite te boole ci njaboot gi yëpp ñu sant yàlla ci moom ndax nga am sa kilifa mu lay liggéeyloo dafa dal xel kon ñi ngi ci am mbégte di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér bi barakati rasulillahi alayhi salaatu wasalaam ñaanal ko mbooleem njabootu Cheikh Ahmadul Khadim bu ngeen gisee jataay bi nag sama ay wax maa ngi koy tënk rek ci lennat ci jëm ci defin wi waaye détail yëpp ak programme yi dama koy bàyyi sëñ Basirou Niang moom dina ko mën a àggale xam ngeen ni bés bi lan moo tax mu ñu defe ko ni dimension bi mu am lan moo ko waral xam ngeen ni ku tedd ki xaadimu rasuul dafa dafa dafa dafa juddu ci kippaaru sunna seydina muhammad alayhi salaatu wasalaam gémmee ci amul farlu ci digganteem ak boromam teel a àgg lool ci boromam ba yonente bi alayhi salaatu wasalaam ràññi ko am lu mu sàkku ci moom te li mu sàkku ci moom moo di mu yeesalal ko sunna sunnaam si sallallahu alayhi wa sallam sëriñ bi waxal ko boppam wax ni li ma tax a jóg mooy yeesalaat sunna Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam fexe ba ñi nga xam ne dañoo aju ci man ma defar leen ba jàmm bi suñu borom bëgg ab jàmm mel ni ñu mel noonee moo nekk itey sëriñ bi mu wax ne lil Moustapha nawaytu maa ñu jaddidu sunnata ul xarra wa inni ahmadu diinun si waa islaamihi laa yuhmadu indal ilaahi wa bihi nu jaddidu sëriñ bi ci loolu la nekkoon di defar nit ñi tënku ci liggéey ba li ko li ko ci fekk li ko dal lépp ci loolu fekk li ko ci fekk lépp ko ci ci liggéeyal yonente bi alayhi wasalaam ak yeesa sunna naa moom bi alayhi salaatu wasalaam ci la nekkoon ba génn àddina ci bis bi nga xam ni mooy fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru muharram mu wuy ji boroomam am lu mu dénk Cheikh Moustapha al Karim mu Moustapha taxawal liggéey bépp ba lam bëggoon mu defal ko ko léegi nag bi nga xamante ni ñibbisi na Touba ba mu Moustapha indi ko defal ko nam ko bëgg woon boobaak léegi muy téeméeri at téeméeri at du benn fan mu war a am luñ ci jàngat jàngat moo xam ni lan la ñu andil. ñu sant yàlla bu baax ci loolu ndax euh, téeméeri at du benn fan kon téeméeri at yi am na luñ ci war a jàngat tàmbalee ko ci Cheikh Modou Moustapha Al Karim mi nga xam ni moo ko jëkk wuutu wóotu yanu yanam bi li sëriñ bi bëggoon lépp mu defal ko ko ak ñi nga xam ne ñëpp topp nañ ci ginnaawam tàmbalee ko Cheikh Modou Fadel. ba ci Seex Muhammadul Muntaxa ñooñu seenub liggéey ak li ñu taxawal ñëpp ñëpp ñu bëgg ko ñu bëgg ko cee ñu bëgg koo feeñal te xam ni liggéey bi bi ñu ko tàmbalee dem nañ ci Seex Muhammadul taxa mu jël ci dogal yi mu ci dëggal jël lépp lu ci war mu def ko bi ñu ko defee itam dem nañ ci mbooleem njabootu sëñ Tuubaa yi kenn ku nekk jël na matukaay yi nga xam ne war nga ko cee jël ba incha allahu fas nañu ko ubbee fii ci Touba lañ ko fas yéene ubbee fukki fan ak ñett ci weer wi. li nga xam ne nag thèmes yi ñu fa war a traité ak ñi ko war a traité incha allah sëñ Bassirou ñaan mi dina ci dina ko leeral bu ñu fi jógee incha allah fukki fan ak juróom danañ dem Louga incha allah def fa benn benn waxtaan bu am solo moom itam jógee fa dem Ndakaaru fukki fan ñaar fukki fan ak benn ñëw njaareem ci ñaar fukki fan yi defee ko foofu incha allah kon ñu ngi ci woo ñëpp di bëgg ñëpp ànd ko ak ñun ba mel ni ko suñu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziare tey yëkkati kàddu ci turu jëwriñ yi nga xam ne ñoo jiite commission culturelle te sëriñ moo Modou Bara moom sëriñ Abdul Xadim nekk ca bopp ba ak al sëriñ Mbacke Abdourahman ak euh, sëriñ Cheikh Mbacke Niang inspecteur sëriñ Cheikh Mbacke Niang mu Modou Mamoun xam naa dañoo am ngànt ñoo waroon a teew fii jot li may bëgg a jot li kon jot li gi ma koy jot li ci seen ndigal laa koy jottalee di sant bu baax sunu borom subhanahu wa taala mi nu boole ci liggéey bu tedd bii mu di liggéeyub yàlla di liggéeyub Cheikhul Khadim ni ko kilifa yu baax yi njëkk a jël kàddu te doon jëwriñu liggéey bi noonu ñu ko xeex foofu rek li ñuy sof suñu kàddu euh, centenaire bi nag ni ñu ko xamee danañ ko defee ci ñetti ñeenti barab yu bokkut ci waajtaay yi Touba lañ koy ubbee le 13 juillet 2024 incha allahu fii ci Darul Mannaan ci barab bi ñu nekk suba gi ak ngoon gi. Euh, le treize nag ci suba gi ci la ñuy waxtaanee ki nga xam ne mooy Cheikh Mamadou Moustapha ndax moom mooy ki nga xam ne moom la sëriñ bi santoon mu indi ko Touba waxtu sun borom ñëwee akub dogalam mu def ko nag ci anam yañ ko ko sante woon yëpp nuy faral di wax ne sëriñ bi moom fu mu nekkoon furu Touba rek foofaay mel ni Touba mel kon nag cooy na Cheikh Moustapha daj. ak lam ca jànkonteel ak pexe ya mu def ba indi ko te xat demut loolu moo tax bis bu njëkk bi ci suba gi ñu jagleel ko ko lañ fa war a waxtaane nag moo di Cheikh Mouhamadul Moustapha dimension yu wuute yi nga xam ne moom lañu war a waxtaane ci moom moo di maanaam am njàngam wala xam-xamam ak mbindam maanaam fan la jaar cim njàng ci xam-xam ak lan la bind nu mu doon communiquer nu mu doon waxee ak nit ñi loolu ay discours am ak i mbind bi yëpp ngi ci biir ku ñuy wax al imam Serigne Moustapha Diop Cheikhou Jëlay incha allahu moo koy waxtaane fii ci barab bii ci suba gi euh, bu noppee itam danañ waxtaane dimension spirituelle maanaam moom ni mu doon dunde diine ak ni mu doon yare maanaam ni mu meloon maanaam nitu diine ki mu doonoon loolu sëriñ Ahmadou Mbacke bu darul Darou Mouhty moo koy waxtaane bu noppee ci loolu ñu waxtaane dimension sociale am ak ni mu doon jiitee xerañte yi mu amoon pexe yi mu amoon ba jiite yoon wi gannaaw bu fi sëñ Touba jógee mu nekk fi ak i waajuram nekk fi ak i rakkam nekk fi ak seex yi nga xam ne yëpp ñoom la sëriñ Touba defaroon mu taxaw temm ci 40 ans ci ñeent fukki at mu taxaw wuutu sëñ bi. fexe ba ñoom ñëpp ñu topp ci gannaawam ànd di liggéeyal sëriñ bi ak ni mu doon jëflantee ak tubaab yi fi nekkoon ca jamono yooya ni mu doon jëflantee këri diine yi ni mu leen doon jëflantee ak àdduna xerañte googu mu ci amoon ci jiite loolu danañ ko waxtaanee sëriñ Moustapha Diop Ndar moo koy waxtaanee incha allah loolu mooy euh, loolu mooy mooy suba gi ci ngoon gi ñu waxtaanee lu jëm ci Touba. ak édifice yi nga xam ne am na ko yoo xam ne yu diine la moo xam ay jàkka moo xam ay ay ay juma moo xam ay jàngukaayu alxuraan moo xam ay ay jàngukaayu xam-xam yum ci doon dees na ko waxtaane euh, ka koy waxtaane mooy sëriñ bu sa Assane euh, waaye ci ngoon googu tamit sëriñ Khady jaxate dana waxtaane njàngaleem alxuraan ak njàngaleem diine ci Touba ni fi demee. sëriñ Xaadi Jaxate moo koy traité loolu mooy bisub le treize bi bu ko defee le quinze moo ci topp Louga la ñuy dem incha allahu Louga itam des na fa waxtaane ñaari thèmes ndax bennoog bennoog maanaam jullit ñi murit yi dañ cee yàgga daj ay coono ngir jullit ñi doon benn ndax dafa bokk bokkoon ci recommandation wala dénkaane yonent bi sallallahu alayhi wasallam joxe woon mooy daa bëggoon jullit ñëpp doon benn wax wahdatul muslimina ndax bi ñu jógee ci xaswatu badrin sax li mu leen njëkk a wax mooy jóge nañ ci xeex boo xam ne li nu war mooy boole suñu bopp nekk benn ndex mooy tax du mën a non not noon yi te lislaam fu mu àgg ak bennoo moo ko fa àggale loolu bokk na ci lañ fay waxtaane sëriñ Basiru Mbàkke moom sëñ Cheikh Thioro moom Cheikh Mamadul Amin moom Cheikhul Qadim moo koy waxtaane Euh, buñ ca jógee itam xam ngeen ne fu demee ne Louga euh, dañ faa war a waxtaanee itam maanaam lu jëm ci fàggulu lew fàggulu lew ni ko sëñ bi waxe kasbul xalaal ak gisiin wi ci yoonu murit am loolu sëñ Cheikhouna bu sa cumb leen moo koy waxtaanee kay moo dere jataay ba itam moo di sëriñ Abdul Xaadir sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke moom sëriñ Moustapha moom sëriñ Abdul Aziz ci loolu mooy moo mooy Louga suñ fa jógee itam njaareem la ñuy ñëw le 20 le 20 njaareem ñaari euh, waxtaan ñoo fa am mi ngi jëm rek ci résidence surveillée bi nga xam ne fukki at ak juróom-benn yi sëñ bi nekk njaareem ni mu ko dundee ndax xam ngeen ne njaareem mooy barab bi nga xam ne fi la sëñ bi gën a yàgg ci àdduna ndax amul fenn ci àdduna foo xam ne sëñ bi am na fukki at ak juróom-benn njaareem mooy fi mu gën a yàgg ci àdduna fa la amee jotug toog taalibe yi di ko fa fekk. ba mujj man nañ ne kilifa yëpp dañoo amoon kër njaareem njaarim nekk capitalu mouridisme boo xam ne fa la ñëpp doon daje ci ci ci wetu sëriñ bi euh, loolu nag ka nga xam ne moo koy waxtaanee mooy docteur Khadim Silla kon fukki at juróom-benn yi sëñ bi am njaarim sëriñ Khadim Silla moo koy waxtaan docteur Khadim Silla buñ fa jógee itam euh, sëriñ Mbacke Abdourahman dana waxtaanee ci thème boo xam ne moo jëm ci xutbatu wam sa sin ndax xam ngeen ne sëñ bi ci fukki fan ak juróom-benn ci weeru muharram 1346 ci tàkkusaan gannaaw tàkkusaan la mujj génne ci mbooloo ba mu génnee itam te dajale mbooloo ma ba ñu daje dafa am benn xot ba benn waxtaan woo xam ne moom la waxtaan ak ñoom waxtaan woo nag waxtaanu dàggatoo la ak waxtaanu dénkaane gannaawam solo su waxtaan woowee am moo tax ñu wax sëriñam Mbacke Abdourahmane ne ko na ko waxtaane waaye dugalaale ci nag maanaam ñibbisi sëñ bi ndax ba loola amee. ba mu fatu génnaatut ci mbooloo ba ni ko fi sëñ mu saa jële indi ko Touba ci lay enchaîné nag waxtaan ci pexe yi sëñ mu saa def ba indi ko Touba ña ko fekkee ak indi gaag na mu demee loolu lépp ci la koy waxtaanee loolu mooy eh, njaareem waaye njaareem xam ngeen ne sunu mbokki Baye Fall yi ci le vingt dix neuf lu jiitu la la la levée ji le dix neuf dafa am ngont moo xam ne ngontum Cheikh Ibra Fall la ndax biñ ko waxee xalif général des Baye Fall te ko ko dañ cee bëgg lool. mu am yéene itam ci mobiliser mbooleem daayiri sikar yu aju ci kër Cheikh Ibra ci ngoonu fukki fan yeeg juróom-ñeent ba set di ñaar fukk ci mois de juillet mi 2024 euh, bi ñu jëm nga xam ne dañ koy dañ koy yendoo sikare sikar ba keroog ñu ñu jeexal loolu itam muy ngontum Cheikh Ibra moo xam ne ci le 19 ji lay lay am bët set di lave di ñu traité thème yi ma wax léegi euh, bu ko defee ci. Euh, le 21 nag euh, mooy doon ndakaaru ndakaaru nag juróomi waxtaankat am na fa ndax des na fa waxtaanee lu jëm ci euh, maanaam dimension sociale ak environnementale bi nga xam ne dëkku Touba am na ko maanaam Touba ni mu ni ni mu maanaam fi mu àgg. ci wàllu social ak wàllu environnement loolu lépp docteur Samboussa moo koy waxtaanee euh, bu ñu ca noppee itam euh, euh, contribution bi yoonu murid def ci wàllu tarbiya ruhiya maanaam yar nit ki defar ko tarbiya ko ba spirituellement mu mën a mu mu jag ñu mën ko wane fu ne mu mën a defarewaat loolu itam li ci Touba def li ci contribution bi mu ci def loolu Serigne Mbacké Lo Mouhamed moo koy def suñu noppee itam ci loolu docteur euh, euh, Abdoul Ahad dana waxtaane ci contribution bi nga xam ne yoonu murit am na ko ci wala euh, yoonu murit am na ko ci njàngale mu mu yees mi njàngale mu yees mi ndax xam ngeen ne dafa am njàngale moo xam ne njàngalem diine la am na njàngalem majalis waaye am na beneen façon njàngale moo xam ne itam Touba dafa am wala yoon wi dafa am taxawaay yu am solo yoo xam ne taxaw na ko ci yooyu docteur Abdoul Ahad Lo moo koy moo koy waxtaanee waaye itam des na fa waxtaanee contribution bi nga xam ne yoonu murid am na ko socialement et économiquement loolu docteur Djibi Diakhaté moo koy waxtaanee ndax loolu itam lenn lu nekk yi yi ma wax yëpp nag mooy gannaaw bu fi sëñ bi jógee biñ ko indee Touba ak léegi lii ma wax lépp mu ngi aju ci biñ ko indee Touba ak léegi lan la ci ay xalifaam def sëñ Modou Moussa sëñ Fallou sëñ Abdoul Ahad sëñ Abdou Khadir sëñ Saliou Cheikh Mouhamadoul Amine Euh, euh, sëñ Sidi Mokhtar ba ci sëñ Mountakha ba ba ci doomam yi nga xam ne sax duñu ay xalifa waaye contribuer nañ ci loolu ku ci nekk boroom xam-xam yi luñ ci àgg danañ wax ñooña lañ la lañ ca def waaye itam des na waxtaan ci Touba ci développement bi mu am maanaam nga xam ne yokkute gi mu yokku loolu euh, docteur Cheikh Guèye moo ciy waxtaan ki nga xam ne nag mooy modéré jataay boobu mooy sëriñ xam Hamdi kon loolu mooy. waxtaan yi nga xam ne mooy am ci euh, euh, ñu tàmbalee ko Touba ba Ndakaaru waaye xam ngeen ne bu ñu màggalee ba ci suba yi ba ci suba itam am na euh, cérémonie religieuse boo xam ne dañ koy amal mooy bisu màggalu Daaru Xudus gi ba ca suba sa boo xam ne li ñu waxtaanee Touba ci le treize waxtaanee ko Louga le quinze waxtaanee ko Njaaréem ci le dix-neuf ak la la le le vingt waxtaanee ko Dakar le vingt et loolu am na tënk bu ci commission culturelle bi di def boo xam ne. ci euh, cérémonie religieuse boobu lañ koy gaarale waaye itam kilifa ya fa teew dana ca sànni kàddu moo xam ne xalif général des mourides yabal moo xam ne autorité yabal waaye itam sëriñ Ahmadul Muxtaar dana fa yëkkati kàddoom kon loolu mooy jëmmi cérémonie religieuse bi kon loolu mooy programme bi nga xam ne tënkoon nañ ko ñu di ko jot li ci commission culturelle bi nga xam ne sëriñ du Bara Mbacké moom sëriñ Abdou Khadim moom Cheikh Mamadou Amine moo ko jiite te am ngant ñu sant ma ma jot li ko salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. foo naa kilifa yi li ñu wax. wax ji leer na nañ dikk nañ ci li nga xam ne mooy ndigal li sëriñ bi joxe mu di Cheikh Mouhamadou taxa ndax li ñuy def lépp moom lañ ko defal mu jaarale ko ci sëñ Ahmadou Makhtar mu wàcce ko ci njaboot gi dikk nañ ci li nga xam ne noonu lañ ko yaatale seeti mboolem kilifa yi ak ni nga xam ne aussi noonu lañ bëggee mboolem taalibe yi kenn ku nekk la ko ci war mu taxaw ci xam ne yëf yi yëfa ma dikk nañ ci wax ak ñi nga xamante ne ñooy waa àdduna si ndax sëñ Touba foofu la àgg kon mu ñu koy defal lu toll nii fépp waay nekk ci àdduna si rek war ngaa xam ne kat bis bii ñu ngi koy waajal fii ci fii ci dëkk bi dikk na itam ci ci programme bi programme bi foog naa mën nañ koo tënk ci ci tënkit mu gàtt day day mel ne jublu gi rek moo di delloo si leeral li nga xam ne mooy yoonu murit ci boppam fondement yoon wi identité yoon wi ak lu yoon wi ak lan mooy jëm yoon wi ak li nga xam ne la ko sëriñ bi bëggee woon loolu nag dañ koo def ay pàcc-pàcc bokk na ci pàcc boo xam ne day aj ci wàllu jàngat ci wàllu koom lan la ci yoon wi def ci téeméer at yi jàll am ca pàcc boo xam ne day ñëw ci jàngat ci wàllu xam-xam jàng ak jàngale ak yar lan mooy ci taxawaay yoon wi ci at yi nga xam ne euh, jàll na am ci pàcc boo xam ne daa mel nañ ko jagleel li nga xam ne mooy dëkkub Touba ni màggee gi gaawee ak ni muy doxee ak loolu yan conséquence lay am loolu aussi dikk dikk nañ ci ginnaaw buñ am waxtaan yi loo xam ne jagleel nañ ko kii di Cheikh Mouhamadou Moustapha nga xam ne moom moo indi woon sëñ bi fii njëkk wuutu sëriñ bi te bis bi itam moom moo ko moo ko moo ko sosoon ak nag dénkaane bu am solo bi nga xam ne sëñ bi dénkaane woon ko ci muy dënkaane mu mujj ci fukki fan yi ak juróom benn ca ca njaareem kon foog naan ci tënk loolu mooy waxtaan wi léegi nag li may euh, li ñu def nii rek mooy comme da ngeen am ay jour journaux yu bari yu bokkut ñu leen koy tënkal ci kàddu tubaab ci loo matut xañ na juróomi minute Donc nous vous de votre présence qui témoigne de l'intérêt que vous portez à cette importante manifestation que nous conduisons sous le ndigal de Cheikh Mouhamadou taxa toute la famille de dara Khoudoss, toute la famille de Cheikh Mamadou Lamine Bara, mais toute la famille de Serigne Touba, de ses, de ses frères et de ses différents Donc c'est vous dire que c'est toute la communauté mouride qui, comme un seul homme, en tout cas, est aujourd'hui réunie pour célébrer le centenaire du retour à Touba de Cheikh Ahmadou Bamba. C'est dire 20 Muharram 1346, 20 Muharram 1446, 100 ans, un siècle, un temps que l'on peut considérer suffisamment long pour les mortels, mais relativement court pour les institutions. Mais c'est un temps et vous conviendrez avec moi qui est largement suffisant pour procéder à une évaluation. Et donc c'est à cette évaluation-là que nous allons nous atteler pour le centenaire de Cheikh Ahmadou Bamba. Le thème général défini, la confrérie mouride, 100 ans après le rappel à Dieu de son fondateur. Réalisation, défis et perspectives futures. C'est ça le thème général. Nous allons d'abord décliner les aspects liés à l'identité, au fondement et principes de la confrérie avant d'aborder sous forme de panel sous quatre axes. D'abord, nous allons parler de l'éducation et de l'enseignement religieux et spirituel. Nous évoquerons également le développement socio-économique de la Mouridia. Nous parlerons aussi du développement fulgurant de la ville de Touba, et nous terminerons par les défis et les perspectives. C'est dire qu'aucun aspect de la vie du Cheikh ne sera laissé en rade. Et donc les jeunes générations qui n'ont pas connu le Cheikh, qui n'ont pas connu les premières générations qui ont vécu avec lui, vont y trouver donc une source d'inspiration inestimable. Et le comité de pilotage, à travers ces thèmes ô combien important et novateurs, entend donc revisiter l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba. L'objectif est de permettre au plus grand nombre d'en tirer Et le Cheikh lui-même a écrit « Dieu m'a donné l'ordre de proclamer que je suis un asile et un refuge. Quiconque veut le bonheur ici-bas et dans l'au-delà doit chercher refuge auprès de moi. Le monde, fin de citation, le monde traverse aujourd'hui des périodes troubles marquée par des conflits dans plusieurs régions du monde. Une jeunesse tout, tout aussi nombreuse que désemparée. Des inégalités, des injustices, la montée des extrémistes, les violences de toutes sortes, etc. etc. Et donc aujourd'hui le monde a plus que jamais besoin des enseignements de paix, des enseignements de tolérance, d'ouverture, de bonheur, des, des enseignements de félicité, de retour adieu, de droiture, de piété de Cheikh Ahmed Bamba. Et donc ce sont ces enseignements-là que nous voulons revisiter à travers ce centenaire de Serigne Touba. Cet enseignement apparaît comme un antidote capable d'apparaître à tous ces fléaux que j'ai cités tout à l'heure. Et c'est donc conscient de tout cela, avec la légendaire mansuétude de Cheikh Mohamed Mountaha qu'il a instruit Sri Ahmadou Mokhtar d'organiser les festivités du centenaire du retour à Touba de Cheikh Ahmed Bamba qui va s'étendre du 13 au 21 juillet dans un premier temps avant d'être clôturé le lendemain du Magal de Darou Khoudoss et qui va coïncider certainement avec le 27 juillet. C'est ainsi que nous serons donc le 13 juillet à Darou Manane ici même dans cette dans cette salle-là. Nous serons à, euh, à Louga le 15 juillet, à Diourbel le 19 et 20 juillet avant d'aller à Massalikul Jinaan le 21 juillet incha allah et donc tout sera clôturé le lendemain du Magal donc c'est ainsi que je le bref résumé que voulais faire en français donc en tout cas pour faciliter votre travail et vous permettre donc d'avoir des éléments divers et variés pour donc pouvoir traiter l'information nous vous remercions